mbokk yi jàkkaaruñ ci dañu seetaan diñu seetaan nag ci biir réew mi bitim réew kenn ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziar baax di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ba mbooleem ay naalam ak sumbam mu eggale ko defe ko nu kawe njortam mbokk yi euh, ju ngeen jàkkaarloo ci waxtu wi ci bërëb bu tedd bërëb bu sell bi nga xam moom lañ nekk mu di kër sëriñ Mbacke Mohamed ngeen xam ni kon ñu ngi ci wàccaay bis bi nga xamante ni mooy ñaar fukki fan ci weeru Muharram di bis bi nga xamante ni ci la ku tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fanaanse woon ci dëkkam bu sell bi nga xam moo di Touba ca Cheikh Mouhamadul Moustapha jàmbaar ja indi ko moo tax nag commission bi nga xamante ni bii mooy daayira bi diwaanul dina lëkkale mbooleem bunti kër yi Cheikh Mouhamadul Moustapha yëpp ci njiital Serigne Ousmane Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma joxe ndigal commission intique bi nga xamante ni ñooy saytu lépp lu jëm ci communication ci màggal gi ngir ñu tasaare information yi fi wàccaay yi tolloog yu mel noonu moo tax ñuy ndokkeel baax sëñ Moustapha Mbacke Mouhamad di xalifa sëriñ Mbacke Mouhamad di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokku wéram ba mbooleem ay naalam ak i sumbam mu eggale ko defe nu kawe njortam moo tax nag bi ñëwee ci daayira bu am solo bi nga xamante ni mooy daayira ahibayil xadim li nusrati diinil xawim ci daayira bi nga xam moo lëkkale kër Cheikh Mouhamadul Moustapha euh, Mouhamad gi moo tax bi ñëwee itam fekk nañ fi ki nga xam ni moo di sëriñ Modou Kane moom lañ fas yéenee àndal jotaay bi nga xamante ni dina toll ci fukk jàpp fukk simili ak juróom kon su ko defee ñu fas yéenee ànd ak moom rek jox sëriñ Modou mu nuyoo su nuyoo itam mën nañoo tàbbalee direct rek ci euh, laaj bu njëkk bi muy euh, jamono jii euh, sëñ Moustapha taxawaay bi nga xam ne am na ko ci daayira bu sell bi nga xamante am na ko ak daayira bi sos gi fan lañ sabab bi aousu billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala haadil amin bokk jullit yi nuy seetaan noo ngi leen di nuyu Eh, di len siyaare di jël kàddu gi ci waxtaan wi nga xamni mom la seigne Moussa ubbee léegi donc jital ci nuyo bi eh, seigne Ahmadul Muxtaar mi khalifa Cheikh Moustapha di ñaan sun borom guddul aw fanam ba yag ba mu yeggale di ñaanal mbolam njabootuk Cheikh Moustapha gi yépp buntu keur Cheikh Moustapha yépp no ngi leen di siyaare di jiital ci nuyo bi sunu sunu sëriñ sunu jëwrin Cheikh Moustapha am sëñ Mbàkke soxna di ñaan sunu borom gudal aw fanam li mu yéene liggéeyal sëñ Tuubaa sunu borom jàppale ko ba mu man ko ni mu ko yéenee te ànd ko ak nun ànd ko ak taalibe yëpp. ni sëñ Moussa waxee léegi rek kàddu gi noo ngi koy jël ci turu Cheikh Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne moo jiite ahibahil xadim li nusrati diinil xawim fi nga xam ne moo lëkkale mboolem section yi nekk ci senegal ñu di ko wax regroupement des daayira ahibahil xadim li nusrati diinil xawim sëñ Baara. mooy sunu jëwrin ci liggéey bi nag ni mu ko waxee xanaa Ahibahil Khadim day kuréel goo xam ni. Mm. Cheikh Moustapha sëñ Mbàkke Soxna Lo euh, bi mu bëggee taxawal mbooloo mii fas yéene ànd ak ñoom liggéeyal yàlla def leen jumtuwaay bu muy liggéeyale yàlla euh, dafa woote mboolem ñi nga xamante ne bi ñoo di njabootam ñu daja mu jox leen digal ci njiiteelu Cheikh Mohamadul Fadil rakkam di ñaanal suñu borom yàgg ko yàggal ko fi loolu moom itam te wéral ko mu euh, ànd ak lenn ci bokki taalibe yi ñu taxawalal ko liggéeyam bii di Ahibahil Khadim bi mu joxe ndigal ñu di ci dox dox ci ab diir moom ci boppam mu jóg solal boppam aw dàllam mboolem foo xam ni ku aju ci moom nekk na fa mu di seex mu di ab section kenn ku ne taxaw na ci sab ëtt dajale say taalibe wax ak yow ci liggéeyam bii di ahibaahil xadim li nusrati diinil xawim ngir yéen a ju mu am ci liggéeyal yàlla yéen a ju mu am ci liggéeyal sëriñ Touba te mënut ñàkk ñu mu ko àndal wax ne jumtuwaay bi mu bëgg a yàlla mooy ahibaahil xadim te taalibe yi ñoo di ci ay àndandoom ñoo ko ci gunge bi muy def tournée mboolem jiitaay boo xam ne def na ko euh, soññee na ci bisub sëriñ Touba bii nga xamante ne bii mooy isrina muharram di bis bi sëriñ Touba fanaan see woon Touba mm-hmm. dëkk bu mu yendu wala mu fanaan fa dajale fa mbooloo ma fa nekk moo xam ab seex la ak taalibe ca ginnaawam moo xam ab section la ak ak ak membre yi ci aju yëpp fu ci nekk sëriñ bi dajale na leen wax ak ñoom jox leen ndigal ci ñu taxawal Ahibahil Khadim euh, mu tëralal ko aw yoon woo xam ni noonu lay doxe bi mu taxawalee biir réew mi ba noppi it seex si nga xam ne ñoo aju ci moom te ne ci ginnaawam euh, te te te jamono yi ñu toll yàlla sunu borom dogal sëñ Mbàkke gi na ci di ñaan mu yàgg a jiite mboolem Cheikh Sousa nga xam ne ñoo ne yëpp it jox na leen ndigal ñu ñu ñu ñu def benn mbooloo àndandoo bokk ci Ahibahil Khadim bi te di ci dox. jox na ndigal it mboolem dongo yi nga xam ne ñoo ci ginnaaw sëñ baaraloo ñoom itam jox na leen ndigal ci ñu àndandoo taxawal ab kuréel tuddi ko Ahibahil Khadim di ci dox diaspora bi itam sëñ Baara Sall na ci seen kanam. jox na ndigal mboolem ñi ne ci diaspora bi ñëpp mhm. ñu àndandoo ñoom itam nasu nasu ci benn buum aju ci ay baaxil xadim ansaar diin xëy na fi jamono yi ñu toll sax mu nga mu nga moom sëriñ bi ñaan sama delloosi ko ak jàmm ñoom it jox na leen ndigal ci ginnaaw sëñ Mbay Gay mboolem lu aju ci ansaaru diine ansaaru diin boobu ñu lëkkaloo nasu ci mboolem réew yi nga xay ne ñoo bokk ci ci mbooloo moomu ñoom tam ñu nasu ni niñ tudde woon ansaaru diine waaye nag ñu bokk ci ay baaxil xaddim ñoom itam ñu ngi ci dox bu baax a baax mu mel ni kuréel yooyu mu nas mu def benn confédération des groupement ay baaxil xaddim yi confédération bu nga xam moo lëkkale mboolem juróomi kuréel yooyu ma wax muy ñu ne ci réew mi ak ñu aju ci seex si ak ñu aju ci ansaar diin ak ñu aju ci dongo yi ak ñu aju ci diaspora bi juróomi kuréel yooyu la lëkkale nas leen ñu àndandoo ñoom ñëpp mu leen ay baaxil xaddim di nasrati diinil xawim kuréel yooyu nak ñoo di jumtukaay yi ni ma ko waxe won yi mu fas ya andal àndal liggéeyal yàlla muy jëmm jo xam nak sunu borom mi nga xamante bi mom la sop tan ko neex mu melal na nit moko ko melal ni mu mel li item jep di liggéeyal yalla ak Serigne Touba da nga ñaan sunu borom yalla jàppale ko ci ba nim mu ko nim ko ko wo yéene ko ni mu mané ko ni mom mbolo mi mu andal euh limu len waxan mo doon ñaari bis day moy bis yi nga xam moom moom tegagu na ci loxo bëgguñu ñu jëme ci sunu it yëpp benn bis bi mooy bisub sëriñ Touba bii ma ne ci la sëriñ Touba ñibbi see woon Touba muy bis bi nga xam ni liggéey bi mu doon liggéeyal yàlla li mu doon yàgg yàgg li mu doon metti metti bis yooyu yëpp doon ko sonn nekk ci loxo tubaab yi di rub juróom-ñetti at yi manqué tuuti lépp te bu liggéey bi matee te wax ci wax sunu borom ni ko. Euh, bis bi gën ci samay bis mooy bis na doon bis bi may daje ak yow ndax nañu soo demee ci mawaahibul xuddóof xuddóos jàlla wax ne allahuma ij alli xayra ayaamin yow ma alxaaka nag ma defal bis bi gën ci samay bis muy bis bi nga xam ne ci laay daje ak yow bis boobu nag Cheikh Moustapha wax ni nañ na ci Ahibahil Khadim bii tàmbalee seenub liggéey muy bis boo xam ne su dikkee mboolem foo xam ne ci Cheikh Moustapha nga aju moo xam ci réew mi moo xam ci bitim réew moo xam ci diaspora bi ak Cheikh Seck dongo yi mu jox leen digal ñoom ñëpp ñu daje taxawu bis bi ba bis bi mel noo xam ni dina ko njort te jàpp naa ni eh, depuis ba mu joxee ndigalee ak léegi ku ku ku ku fiy ñëw ku nekk gis nga ni bis bi jox nañ ko wàcc waay boo xamante ni bii eh, jamonoy Serigne Cheikh ba léegi ñu ngi koy amal jamonoy Serigne Mbacke noonu yal na yokk seen leer gis nañu ni dimension bi Serigne bi yóbbu fi ne ni màggal gi ci kër gi moom moom moom ñoom ñu ñu dox nañ ci seen kem kartan waaye ne dimension boobu yëgguñu ci woon te te te mbooloo mi nga xam ne ñoom la nos dénk leen ko taxawaay boobu ñoo ko ci taxaw ba tax bis bi egg ci daye boobu mu waxaat nit ni bis bi nga xam ne moom la dolliwaat muy bisub ngan gi muy def salallaahu alayhi wa salaam di bisub gàmm mu waxaat ni moom itam jox na ndigal mboolam kuréel yooyu su gàmmu jotatee ñu àndandoo dem taayif ca barab Cheikh Mouhamed Mbacke ba fanaane ko fa yendoo ko fa màggal fanaane ko fa màggal ba xëy mu yeewi nit ñi ñu delluwaat bis booba itam ku ne xam na ni nii mu koy organiser nii mu koy amale ca Taïf mën nañu ne ci jamonoy Serigne Touba la ñu mujj a gis lu mel noonu ndax moom bu xësee xëyee këram ñëw ci baas bi ci suba gi fi lay nekk ak mbooloo mi ba jiitaleen tisbaar ànd ak ñoom di durus alxuraan ak xasaayit suñu jullee tisbaar ab diir dina dugg ci biir su génnaatee moo leen di jiitewaat takkusaan àndaat ak ñoom liggéey bu ba jiitewaat leen gee doo ko duggaat ci biir su gaté ci biir itam ginnaaw gee di bu génnaatee bala joggé wat ci bass bi day na jiite suba ñu ñu ñu égalé mu def ñaan door a door delluwaat ci biir te lépp nak mbolo mi ci suuf lañuy tok durus alquran ak qasayit melakan waxante ne yéeme na lool. jërëjëf Serigne Modou kan ci léral yu am solo yi nga xamante indil ngënu ko ci li sabab sang bu tedd bi nga xamné modi Serigne mustapha mbake mohammed borom Nebo ji. taxawal liggéey bii xamal nga ñuy dara yëkkatiwu ko lu may liggéeyal maamam Cheikhul Khadim daayira bi di jumtukaay bi nga xamante ni ci lay jaar ba mën a liggéeyal Cheikhul Khadim ci ni mu ko bëggee wax nga ni ñaari bés yoo xamante ni nee na moom la fonklu yoo xamante ni taxaw na ca kemtulaayu kàttanam waaye itam képp ku ànd ak moom nekk ci ginnaawam nga wax ne juróomi kuréel yëpp taxaw na wax ne ñu taxaw ca seen kemtulaay kàttan mu tàmbalee ci bés bii ñu dëgmal di euh, bis bi nga xam ni maam ju tedd di sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma amoon na ci taxawaay waaye tam way juróom wa sell wa di sëriñ Mbacke Mohamed kazalika naka noonu ndax seen maam di sëriñ euh, Mouhamadinil Moustapha moo ko sosoon ngir lan ngir fàttaliku seexul xadim ak ñaanal ko kon loolu di lu am solo mu mel ni kon nag euh, wax nga ni yéen ngi ci wàccaay wér-wér fi mu toll nag nan nga ñu mën a wax nag wàccaay fan lañ ci toll ak nan lañ koy waajale ak lan ngay wax taalibe yi nga xamante ni ñoo ci ñëw cig tënk ñu soog a mën a yëkkati jotaay bi. jërëjëf niñ ko fas yéene waajale rek mooy niñ ko doon defee te fas yéene mu mu ëpp loola li ci jiitu na ci bis bi mooy jàng alxuraan ak xasaayit ku ne xam na ni sëñ Tuubaa itteem jëpp moo doon jàng alxuraan moo doon itteem ndax lu bari ci la ko amee alxuraan ak xasaayit la serigne bi wax itam ne suñu xeye nañ ci yandu fanane ko ba asaman set lolou bokku na ci li nga xamanteni bi moy waccay bis bi leneen li des moy, ci commission organisation bi nga xane aladj alaaj Fall moko jité ma top ci mom te diko ci saytu ñomit euh, tambali nañ suñu liggey tay ji ni ci bi fi, ci buntu keur serigne bi xalé yi ñu ngi jëli bagage yi di ko indi fa senia so buñu xeye tambalé samp baas bi euh, fas na yene bu ko yalla dogalé bala aljuma lepp bi dina noppé wàccaay wi tam bokk na ci fas nañ yéene yàlla su ko yàlla dogalee kër gi nga xam ne mooy kër Cheikh Mouhamed Cheikh Mouhamed Mbacke sëñ Moustapha Mbacke di jëwrin ji ñaan sunu borom yàgg fi lool te wér euh, muy mu ñu fas yéene képp koo xam ne wàcc nga fi di gan tiraanga ja nga xam ne war na ci yow ci tiraanga ju ñu war a teral gan ak goo mën a doon rek fas nañ ne tiraanga ju tol noona su ko yàlla dogalee soo ñëwee di nga fekk loolu tax na nag ñu ngi woo mboolem taaliba yi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal kër gi di mboolem tool yi nga xam ne moom la ñu bokkal lislaam ji di mboolem tool yi nga xam ne la ñu bokkal daaru xudoos ndax wàccaay woowu kër yëpp di wàcc kër Cheikh Moussa yëpp ñu ngi wàcc wàccaay yu toll noonu waaye fii ci nun moom mboolem ñi nga xam ne ñoo aju ci kuréel yu ñu doon lim ñoo ngi leen ciy soññi di leen wax ne nañu yokk seen seen wàccaay fas su ko yàlla dogalee nañu ko doon defee at yi yàlla yëpp ren ren faw xa ko te rafet nañu ci njort ndax rafet nañu njort mooy mboolem lu ñu ci doon def te te te wërsëg di ko def yokkees na ko ba jàpp nañ ni eh, lu ci war dina mën lu ci wërsëg def des na ko mën lépp loo xamante ne carte na koy def waajal nañu ay ndaw yoo xam ne eh, muy commission bi nga xam ne ñooy organisation ak commission sociale bi ak éducation culture ñoom ñi nga xamante ni ak communication ñoom ñi nga ni ñoom kenn ku nekk am na lu ñu la dénk ci bis bi kenn ku nekk la ñu la dénk mu jëm ci bis bi ngir bis bi sotti yaa nga cay dox doxin woo xamante ne bii jàpp nañ bu ko yàlla dogalee ñu egg ca. dina mel nu ko njort di ñaan sunu borom soxna darajey bis bi sunu borom yàggal nu fi Cheikh Moustapha Mbàkkam sëñ Mbàkke soxna Lo mi ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal maam ja xaadimu rasul yéene ko ci jullit ñi sunu borom dimbali ko ba nam ko yéene mu mane ko noona wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ Modou Kane macha allah euh, jërëjëf ci wàccaay wi ni nga ko waxee ndax kuy waajal ku toll ni seexul xadim yaakaar naa ni wàccaay wa nga koy waajal da nekk wàccaay wu nga xamante ni mooy wàccaay wu gën ci wàccaay yi tubaarkàlla macha allah xel gën naa dal yortu gën naa rafet yaakaar itam gën naa yokk ci sëriñ Moustapha Mbacke Mohamed ngir jumtukaay yi nga xamante ni yàlla may na ko ginnaaw ba mu sosee bi nekkoon jumtukaay jumtukaay bi itam xam nañ fa suñ ba bëgg euh, ñu teg fa tànk seen tànk ñoom itam ñu teg fa seen tànk ci jëf ak wax ak ci côté boo xamante ni mooy côté liggéey bi macha allah mel ni kon euh, li ciy programme mooy bis ba itam dien fi amal jang alquran jàng khasaid istighfar salatu ala nabi mbollem lo xamanteni dañ koy def ci lu bax rek inshallah rabbi dien ko matali fi su nee ba 23 h nak serigne bi génn ci buntu bi ñu def waxtaan wo xamanteni ni amatan lay doon lépp serigne bi dénk ko mbokki talibey yi ni ko Cheikh Moustapha daan defé kon ñu ngi sant yu gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh si gël te madru yi nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farja ki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha